يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وتريبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وتريبا بلا هدد لا تلت ضيفا كريما شائرا أبدا مكرما بخراتات والشضد محاسما عند رب لا شريك له وعند أهل الطغى والحلم والرسد لا سِلْتَ ما هي أو سار وخادي أو تار وتارد أخيار من الخلد وزافدا كل سيتان بما مهه ومتحفا لسبيل الإحسان بالسفد وموحبا كل أحسان نديخ بها في دهر أفئدة يا مشهب النكدي وشاهدا كل هام ما نفوس فوس به من جود مغن كريم نافه السيد يا سار راب كريم فيك جاد لنا بليلة الخدر سات الفضل ورخدي إني أحبك حب سات سات رب من مالك فيك إسادا بلا أودي سا توبة فيك أيضا ماديا أبدا بسكر وشكر والقرآن للأحدي إليه قد في زحبان حن رجد مجددا فيك فاسهد لي بترك ددي لسحد بأخزي كتاب الله فيك هنا إلى تهالي يوم السبت والأحد واسحب بحبك حب ساتي يا أملي وكن حبيبي يوم الحي والكمد إني أحبك يا سهر سيان بلا خس فآلا وترهيبا بلا عدد إني أحبك يا سهر سيان بلا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 สัมปด sunu borom bi di ko tagg di ko kañ di ko soril wépp melawu yellul ci moom te di ko takkaayal melawu mat gi yell ci moom di ko tuubal sunuy rëcc rëcc ci weeru tedd wii di ñaan lépp luy sabab meram ci pas-pas ci kàddu ci jëf mu musal nu ci waaye lépp luy sabab ngërëmam it ci pas-pas ci kàddu ci jëf mu bokk nu ci te bokk nu musal ci mbooleem luy dog suñu diggante ak moom dox suñu diggante ak shaytaan ba fàwwu dugal nu ci sangem si nga xam ne jàmbum ca dugal du am ci yow mukk aw yoon di ñaan muccam ak xéewalam yàlla ba mu dañ di dotti ko ci jaamam tey ndabam muhammad di ñaan ngërëmam ak leeram yàlla ba mu dañ di dotti ko ci ruuhu mawlana cheikhul xadim maa ngi nuyu bokki jullit yépp di leen siyaare di leen baalu xaq di leen baal xaq di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk waaye kenn ku nekk ci noonu it nag bàyyi xel ni weer wi mi ngi gën a sori mi ngi dem mooy gan gu tedd di gu màgg goo xam ne lu waay bëgg ci njëggal ci sa digganteeg sa borom lu say rëcc bari lu say rëcc rëcc bari woon lu mu bari bari bari bari bari war ngaa góorgóorlu ba booy génn weer nga mën ci am njëggal waaye di weeru it ngërëmal yàlla ci bépp jàmm bu sellal te sàkk ko ci di weeru yërmande kese sëriñ bi nag mel na ni nun ñépp soññ nañu ci yaa xayra dayfin ataa bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarayban bila xadadi muy ngën ngi gan gu dikk lan la dikke muy mbégte ñett yooyu ñu wax ku ne xam na ni mbégte la ndax sunu boroom daf nu bind ci ak matadi goo xam ne day gaar doomu aadama rëcc rëcc yu bari man koy dal ci li muy xool te waru koo xool li muy déglu te waru koo déglu li muy jëf ci ay cëram te waru koo jëf weer wi yooyu yëpp su ko ci jéggaloo suñu borom suñu borom mën na ko ko cee jéggal waaye suñu boroom mën naa yem ci ñàkk jéggal gi rek waaye mën na caa toftal yërmaande ju sax dàkk mën na caa toftal it ngërëm lu sax dàkk te lépp ci weer wi la ko suñ borom indee waaye muy weer woo xam ni jullit bi su farloo góor góorlu néewal doole bakkanam ndax xiif gi ngay xiif góor góorlu gi ngay góor góorlu ci donte jamono bu ne moom boyal say cër gënut waaye nag góorgóorlu gi nit ki di góorlu ci weeru koor li ko suñ borom tere woon lépp mu def ci yitteem ci di ko wattandiku kem kàttanam loolee dana may doole ruux lool ba nit ki su far su farloo suy génn ci weer wi ruuxam yi ci taqoon yu bari di kiiraay luy dox digganteem ak boromam di dox digganteem ak leeru boromam gi nga xam ne bu feesee ci xelam ak xolom ak roham dana tax xel li muy xalaat lépp nekk lu jub xol ak bëggam lépp di nekk sunu borom waaye cër ay jëfam yépp di nekk lu yàlla gërëm nit ki su góor góorloo ci weer wi noonu muy teeta li ko yàlla tere di sukkandiku ci li ko yàlla digal dana tax ruuxam am doole am kattan ba buy génn ci weer wi taq-taq yi nga xam ni yépp nekkoon na ci moom dana set wicc ba ni bakkanam ak bànneexam ni mu ko daan diisale ruu dana woyof ba mën a yéeg ci sunu borom subhaanahu wa kon muy weeru mbégte waaye di weeru tëbb ci leeru sunu borom ñu di ko wax kon nag noo ngi lay dalal ci jàmm noo ngi lay yaatalit ci ludut weeru koor ci nan lañ koy yaatale ci lan lañ koy dalale ci jàmm gannaaw gan gu màgg la gan gu tedd la gu wàcc ci nun xam ngeen ni kenn ku nekk ci nun dey kam gën a fonk ci kaw suuf su jógoon ne la dama lay ganasi danga togg bu dee ka la gën a ñor la danga seet togg ya nga yaakaar ni moom la gën a bëgg nga togg ko la nga cay feral yépp it doo ko yëg bànneex lay doon ci yow boo doon génne sa alal di jënd ay nag di jënd ay xar di jënd ay fur yooyu yépp day nekk loo xam ne doo ko yëg bànneex lay doon ci yow waaye soo ko mënee da nga defaraat say lal da nga defaraat say torop bu ko jaree sax da nga yeesalaat kër ga yooyu yépp tey ngir lan ngir gan goo gi moo tax nag weeru koor moom li ñu koy ganalee su dikkee mooy fexe ba loo tële woon ci ak jaamu yàlla nga fexe ba takk farlu ca ci sa pas-pas ci say kàddu ci say jëf ci say melo ba ni nga xam ne gan googu nga fonk su dikkee ci sa kër doo bëgg mu gis fa lenn lu lu ko naqari doo bëgg mu fa lenn lu ko naqari dund fa lenn lu ko naqari su weeru koor wii nu nekk su tàbbee ba ba muy jeex noonu lañu ko war a teeroo noonu lañu ko war a tatagale noonu lañu ko war a dalale ci jàng alquran ci tudd yàlla ci fàttaliku ëllëg ci xalam sunu borom ci xalam ay xéewalam ci teetit lépp lu yàlla gërëmut bañ bañ a dem ci benn béréb boo xam ni danañu fa déggee lu yàlla gërëmut bañ koo dox ci sunu tànk bañ koo jëf ci sunu cër yépp moo tax mu ne kon li ñu koy terale mooy ber topp yàlla ak nekk ci njub kon noonu ci sëriñ bi soññee ak noonu mu koy tatagale bég ci lool xolom sedd ci guyyu yàkkamti weer wi ñëw lool noonu ni lañu war a def te bañ a koor kooru ñàkk pexe ndax su boobaa yaa ngi wàññi fan yi ni nga xamante ni soo amoon gan goo fonk lool nga bëgg ko lool sopp ko lool bu dikkee sa kër doo bëgg mu ñibbi boo soñoon sax mu far dëkk ak yow weer wi bu duggee bis buñ ci am rek dañoo wara am jàqare dañoo war a am tiitaange xam ni mi ngi wàññeeku te buñ soñoon day yokk waaye du wàññeeku ndax sunu yiw gën bari ndax sunu njëggal gën a màgg ndax sunu yërmaane sunu borom gën a yaatu ndax ngërëmal sunu borom gën mag màgg ci loolu li nga xam ni boo gan gu tedd bu dikkee ci yow doo doyal ci la mel ci nun nu bañ a ci ñi nga xam su weeru wu yaa ngi tàmbalee wañ ñaata fan lañu amagoon am nañ benn fan am nañ ñaari fan am na ñetti fan ah semaine ci des tey di tey dellu seen wor yi di ko xalaate noonu loolu wërta nekk yi ak jullit ndax di ma koy weer weeru weeru été la ñi nga xam ni tey bu fekkoon tey dañ naan la kat bis bu set soo wooree ñu jox la nangam dana am ñoo xam ne duñ bëgg mukk koor gi jeex te mbooleem dañuy am ci àdduna kat luy deñ la waaye lim nuy jural ëllëg yowmal xiyaam luy des la ba faw te du jeex mukk kon nag ni nga xam ne tey su ku ca amoon gan gu màgg gan goo fonk boo sañoon bu ñëwee sa kër du fa gis lu ko neexut du ko fa dégg du ko fa dund te boo boo boo sañoon it mu far dëkk ak yow noonu la weer wi war a mel ci nun nga xamante ni koor gi ñuy woor bànneex lay doon ci nun dañuy am yëg-yëgu bànneex boobu xëy na nag nit ñu bari soo leen dee wax bànneexu jaamu yàlla daf leen di jaaxal te sëriñ Touba jàngale ni nit ki fekk demut ba bànneexi jaamu yàlla dàqal ko bànneexi aada yi ñu xam muy lekk ak naa nag nelaw ak ya cay bàyyi ko su boobaa nit ki demegut fenn loolu lépp nit ki da cay tàggat boppam tàggat ca rooxam ba àgg foofu ba booy jàpp ngir jëm ci julli day neex ci yow booy kàbbar di julli day neex ci yow waaye boo yéenee jëm ci ne suba damay woor dafay neex ci yow ndax da ngay xam ne lii jëmmi sunu borom subhaanahu wa taala moom nga koy defal nga di ko bànneexoo di ko bége xam ne yaa ngi jëf sa ndigal sa sang ni nga xamante ni tey ka la gën a ka nga gën a fonk ci kaw suuf bu la doon digal na nga koy bànneexoo noonu ngay def ndax waxuma la gan koo fonk rek waaye tey ku kuñ ñëwoon tey da ngay am soxna soxna si wala ñëw ca kër ga pentiraat baag wuti lalak lu ne ci bernde da ko def te yaag moom ak la nga koy wutal ak lépp luy deñ la te weer wi li nga ci jële ngëneel lu dul jeex mukk la ngëneel lu dul dog mukk la pag gu téef la woo xamante ni lam lay jural ëllëg du jeex du yàqu du ràpp te boo ci boo fa nekkee li nga soxla lépp da nga ko mën a am loolu mooy tax yi nga xamante ni mooy diggali sunu borom yi war nañ koy fonk te war nañ ko jàpp mu ni muy weeru màgg fa yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni ëpp naa bokkaale ci jëmmam wala ci jëfam wala ci melokaanam waaye lu màgg la fi yàlla ci ñi nga xamante ni nag ñu ragal yàlla lañ ñu am ak xam lañ ñu am ak njub lañ kon weer wi ni ci sëriñ bi soññee ba bind ak xasida ngir moom nun ñëpp war nañ koy bàyyi xel bu baax di sant yàlla ci weer wi munu jagleel nga xam ne luñ ci tilim lu ñu tilim tilim tilim ci ay bàkkaar man nañ cee sangu ba set fóotu ci ba set ba buñ ci génnee mën a génnaale njëggal ak yërmande ak ngërëmam kenn ku ci nekk ci nun na taxawe noona lay tax nag ñu mën a taxawee noona ci bu ñuy génn weer wi mooy bi ñuy tàmbali ñu am yéene ju sell xam ne yàlla moo nu ko digal yàlla mooy buur bu tàmbaliwul fenn te yemewul fenn bind nu moom nu melal nu kattanal te bi mu indee ci kaw suuf mu boole na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ponk yi mu indi it ponk weeru ko yi nga xamante ni moo fondé l'islam weeru koor wi bokk ci kon ndigal yooyu dañ ko war a jël ci mbégte ci sant yàlla xam ni loole ak defaru rekk la ci ñun muy weer woo xamante day far wépp ñaawteef waaye day fajit wépp aajo waaye weer la woo xamante dañ ci tënk it seytaane te day dañal it wépp njàqare ci diiru jamono kon loolu rek lañ doon barkeeloo ci xasida googi li ci ëpp solo mooy lim ni inni uhibbuka ubba taati talabin min maliki fiika ishaadan bila awadi bëgg gi nga ko bëgg ngir jëmmi weer wi sax xubbu saati ndax loolu wax ci bi rek la wax ci weer wi dahaani ila nabi xubbu zaatihi tag gi may tag di bi bëgg jëmm ji la nga xamante bu dutoon muhammad rasulillah sëriñ bi moom bëgg na ko ngir yàlla waaye weer wi dafa àgg ci bëgg jëmmi weer wi ubb saati kon loolu ñun ñëpp googu bëgg war nañ tàggat suñu bopp ba weer wi mu nekk weeru cofeel ci nun di weeru mbëggeel ci nun ndax day weeru faju aajo te bu ñu xamoon nag lim jural ci njëggal ak yërmande defe naa ni bëgg goo gi sëriñ bi wax nun ñépp danañ ko ci roy ndax fii ci àdduna kët képp koo xamante ni tegtal na la walla mu jaarale la wala mu laabiire la ci yoon woo xam ni soo ca jaaree am lu li nga bëgg lépp ci àdduna bu dee kër nga bëgg nga man koo am bu dee wata nga bëgg nga man koo am bu dee dund bu xew nga bëgg nga man koo am si mbir yépp jàppandi defe naa ni kookee danga ko bëgg lool kon nag nii nga xamante ni noonu la sëriñ bi tegtalee weer wi li ci di ay ngëneel li ci di njëggal li ci di yërmande ak lim nu mën a jural ëllëg ci suñu diggante ak sunu borom loolee kenn ku nekk ci noonu war na ko bàyyi xel xam ni mi ngi sori ndax xaaj na bañ jëm ci xaaju ñaareel bi ñu fexe ba li ñu rawoon ci xaaj bu njëkk bi ci jàng alxuraan ci teewlu ci tudd yàlla ñu góorgóorlu bu baax ci fukk yi ñu tàmbali fukk yi ci digg bi ñu farlu ci waaye fukk yu mujj yi tamit ñu yokk sunu farlu yokk sunu góorgóorlu yokk sunu njàmbaar ndax àdduna ku ne xam na ni kenn safu fi te dund gi moom kenn xamut fu sa dund di yem kon occasion bu mel ni weeru koor su dikkee jullit bi war nay farlu ba fexe ba yett yooyu ñu wax mu am ko ci waaye am ngoo xamante ni dana góorgóorlu bu weer wi jeexee ba dootu ko ñàkkati mukk ndax weeru weeru tàggatu la ndax boo xoolee boo tëj woon ci sa biirum néeg sa digganteeg sa boroom rek lala la yàllay lépp te muy lu daganoon ci yow sax doo ca laal dara boo nekkoon ak sa soxla ci biir kër gi doo ca am soxla boo nekkoon nag frigo bi ndox mu sedd nekk ca yuy sedd yi nga soxla yëpp nekk ca doo ca am soxla bu lekk gi begge ne woon it doo ca am soxla donte lépp lu la dagan la waaye da ngay gis ni lii kat dañ ma ko tere tàggatu gi ngay tàggatu ci loolu ñu la tere ci biir weeru koor te muy lu la dagan nga mën koo muñ ngir yàlla loolu boo ci tàggatoo su weer wi génne dana tax li la yàlla tere woon du tam tam doon loo xamante ni dëgganut ci yow muñ gi nga doon muñ lii nga xamante lu dagan la waaye ñu tere la ko ci bëccëgu weeru koor muñ goo gi su saxee mën naa dem ba wàll si ci bu weer wi jeexee it nga mën a muñ li nga xam ni mooy li yàlla xaraamaloon ci yow kon nag weer wi nun ñëpp nañ ci gën a takku te gën cee góorgóorlu te li nu sëriñ bokk di labiré bokk dinu ko digal ñun ñëpp nu di ko bàyyi xel ndax suñu bëgg kër du wér ci moom lu dañ ko dugal ci biir bëggam sëriñ moom ak bëggam gépp da ko dugal ci biir bëggug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yonente bi moom ak bëggam gépp it mi ngi ko def ci li nga xamante ni moom la ko sunu borom yónni muy diine lislaam kon te diine lislaam weeru koor wi nu nekk ab ponk la ci biir diine lislaam kon ponk yi jiitu weer wi tamit noonu lañ ko war a fonke waaye weer wi nag day weer woo xamante ni suñu borom dafa wax ne koor moom lu ma ñeel la man maa koy fayal sa bopp loolu waxu ko ci julli waxu ko ci aj màkka waxu ko ci natt asaka kon li nga xamante ni suñu borom moo koy méngoo bépp jaam bu ko taxawee du la boole kenn moo lay fayal boppam defe naa ni jullit benn bu ci nekk dana bég lool dana sant lool ëllëg yowmal xiyaam suñu borom woo ko ci aw turam ba mu wuyu ko mu ne yaa ma defaloon nangam te sama jëmm rekk tax maa la fay kër sàngam ci aljana wala maa la fay sama xar kanam bu tëdd bii ngay jàlloog moom loolu defe naa ni jullit benn bu ci nekk war na koy bëggee loole nag la koy maye mooy weer wi xàq jim laaj ak worma jim laaj ñu sàmmonte ak moom ñun ñëpp kon sëriñ bi nga xamante ni loolu rek mooy yitte bëgg-bëgg yonante bi te noonu sunu bëgg-bëgg ko ci moom nañu fexe kon ba li nga xamante ni mooy li bëgg di weer wii nga xamante ni fu mu toll da ci daan def ay berde fu mu kanamam di belli kon weer wi war nañ koo fonk bu baax gën a fetli sunu njàng alquranul karim sunu tudd yàlla sunu fàttaliku ëllëg sunu bàyyi xel ëllëg ndax ni ko waxee rek dund gi moom lu la te kenn fa sa bakkan di kon nag bu ñu yàlla mayee ñu fekkee te xamuñu ndax danañ fekkee déwénam déet moom la ñuy ñaan waaye nag kenn xamut sa dund fan la yem kon bu occasion dikkee la nga war a def mooy góor-góorlu takku farlu bu baax ba mu yóbbul la yiw woo xamante ni ëllëg soo dajeeg sa borom da nga ca bëgg lool sëriñ bi wax na ni am na ci aljana bunt boo xam ni kenn ku dut ab woorkat du ca dugg mukk wooy woor yi rek ñooy tàbbi ca boobay bunt loole war naa tax ñu fonk weer wi bu baax a baax a baax fonk koor gi bu baax a baax a baax te sellal ko mboolem gën liñ ciy dayre it mënuñ caa jot ci lu dul nag nu sellal bu baax a baax a baax li ñuy def fexe ba bañ a doon koo xam ni koor gi xiif ak mar rek moom nga ciy jële ndax am na ñoo xam ne kat seenu koor xiif ak mar rek moom lañ ciy jële koor bu am njariñ mooy nga yéene ci yàlla rek fas yéene ñi nga ñàkke lekk ak ñàkke naan nga fas yéene it doo xool ci say bët lenn lu yàlla gërëmut waaye doo déglu ci say nopp it lenn lu suñ borom gërëmut waaye doo ko jëf ci say cër doo dox jëm ci yenn barab wala yenn jataay loo xam ne lu suñ borom subhaanahu wa taala gërëmut ma nga ci biir jataay boobe muy weeru njëggal jéggalante ci suñu biir nag ndax ab jullit dafay jéggal mbokkum jullitam waaye day jëllale it ci mbokkum jullitam loolu dafay nekk lu am njariñ muy weeru yéenente jàmm weeru jëflante jàmm weeru berneel berneelante ci sunu biir te jëm yàlla rekk it lal ko weer woo xam ne war ngaa fexe ba ni ngay amee ak njéggal ci sa diggante ak sa borom it nga fexe ba sa digganteeg sa moroomi jullit yi nga dëkkal wala nga nekk ak ñoom it koo ci xam ne ragal nga ne amee nga ko àq nga fexe baal ko xàq ba mu jéggal la te yàlla rekk tax kon ni ngay fexe sange say cër lekkoo naanoo fexe sange say cërit fexe ba bul fi wax benn jullit lu yàlla gërëmut ndax su fekkente ni yaa ngi woor xëy boyal saw làmmiñ di wax lu saw yéen nekkut toog fenn di tudd sa moroomu njaam ci loo xam ne su ko déggoon du ko gënal loolee lépp lu yàqu koor la te koor kay du la amal njariñ ndax ab julit kat war naa fexe ba la def ci lu baax du ko jox kenn waaye war naa góorgóorlu it ba beneen jullit la def ci ab safaan it du ko yenu mukk te bokk na ci safaan ah, nit def ab safaan yow bu jëfee safaan ba digganteem ak boromam la nga toog fa nga toog di wax ci moom lu noona loola lépp day tax moom lam jëf ci safaan lépp nga fab ko ndax li ñuy wax fàllaskat mooy koor dëkke julli dëkke jàng alquranul karim yu baax yépp saraxe def lu baax ci saw ñaq yépp nga di def waaye fekk na yaa ngi toog ne diw day def na nangam diw day wax na nangam di jëw nit ñi di leen añaane li leen yalla jox di wër di rambaaj di yàq ab diggante nit wax ay wax jublu ci lu rafet nga dem feneen tuxal wax ja tuxalinu ñaaw woo xam ne da ngay soosale diggante ay julit ba bu nu gisee di foñante loolu bépp jullit boo xamante ni mi ngi koy def moo bañ a woor a yam képp ndax sa koor gi doo ci am dara kon na koor dafay nekk loo xamante ni jullit bi su koy def na fexe ba sërim yépp it mu sange ko waaye su fekkente ne yu mel noonu yàlla natt woon na ko mu doon ko def jëkk weer wi it na góorgóorlu ba weer wu dikkee képp koo xamante ni jëloon na alalam wala mu jëfandikoo woon ab deram mu fexe ba yooyu yépp mu am ca ak njéggal ka nga tooñoon nga dem ba ca moom ne ko ah nanga ma baal àq di ma jéggal jurut sax nga naan ko defoon naa la nangam wala waxoon naa la nangam waaye nga fexe ba say xamee wala ña nga dëkkal kenn ku ci nekk su weer wi tàbbee nga dem ba ca moom jox ko loxo ne ko ah maa ngi lay tuubal ndax ab jullit day matut bu dee sa dëkkandoo la amaana leekat lor ko ci sa wax amaana lee lor nga ko ci sa jëf amaana lee lor nga ci saw melo su ko defee ngeen jéggulante kenn ku ci nekk mën a jéggal morom ma te yàlla rek tax te fexe ba la nga jàpp ni rëcc rëcc loo yëg la nga fexe ba loola bañ laa dal rëcc rëcc la ya nga yëgul nag nga fexe ku ko jéggulu ba mu jéggal la ko te jëmm yàlla rek tax kon koor gi yëmul rekk ci ñàkk lekk yëmul rekk it ci ñàkk naan waaye su fekkente ni yaa ngi woor ba noppi dem ci béréb boo xam ni doonte yow waxoo waaye léeg-léeg ngay xool loo xamante ni du lu yàlla gërëm wala ngay déglu loo xamante ni du lu yàlla gërëm yaa ñooña dong yéen a cay bokk ab àtte kon fàllas mooy ñëw bis penc ba ëllëg yowmal xiyaam indaale julli yu bari indaale woor yu bari indaale natt asaka indaale joxe sa alal indaale jëfi yiw yu bari waaye fekk na nag téewoo woon saw làmmiñ ci deru jullit yi yaa ngi doon jëw yaa ngi doon wax nit ñi lu ñaaw yaa ngi leen doon ŋàññi yaa ngi doon rambaaj yaa ngi doon wax ci ñoom naka sudul noona su boobaa ñooñee ñépp dañ lay dajale la nga am ci lu baax ñu teg ko koo waxoon ci moom ab safaan ñu tibb ca la nga am ci lu baax jox ko tibb ca lam am ci safaan jox la noonu la ñuy def di ko def di ko def ba ñi nga waxoon ci lu baax ci safaan ñëpp mat amaana lee yow la nga amoon ci lu baax lépp da dana dem da nga leen ko fay da nga leen ko jox ba mu jeex ñoom lañu amoon ci safaan ñu xëpplu ko ba nga fees del ñu jang jangé ni dila yóbbu ci safaan ba loolu julit bu ne war na koy daw julit bi nag nam koy dawee mooy fexe ba sooy jaamu yàlla nga boole ca ak maandu la julit ña di def wala la nit ña di def saw yoon bu ca nekk téyel saw làmmiñ ndax kat ëllëg yowmal xiyam ñi dugg ca safaan ba ña ca ëpp boo leen laajee seenu làmmiñ moom lañu junj kon làmmiñ gaynde la goo xamante ni que nit ki su ko téyewut ni ko yàlla bindee man na ko tabbal ci xuntim safaan boo xamante ni du ca mën a ti mukk te làmmiñ de ku ne xamante ni ko suñu borom def bañ téye na ko tuñ téye ko kon nit ki war nay fexe di noppi ci lépp lu amul njariñ di wax aw yiw wala nga noppi kon nag maa ngi dénk sa bopp tey dénk jullit ñépp weer wu ñu nekk sellal gi dara gënu cee kawe téye sunu làmmiñ te sàmmonteeg sunuy gët jéggalante ci sunu biir jëllalante ci sunu biir dimbalante it sunu biir fexe di dogal wooy woor ñi te dogal gi nga leen di dogal it yàlla sunu borom rek lal ko ndax nit ki it limi li jëf lu jëf ji rëy rëy rëy lu jëf ji bari bari bari te jubluwoo ci lenn lu may ngir bëgg nit ñi di ko tudd loolee jëf joojee amul njariñ jëf ja ca gën ëpp ca njariñ ëpp ca tuyaaba mooy li nga xam ne yàlla rekk nga di ko def te bo sañoon sax yow mi koy def kenn du ko yëg mu wuuteeg léegi lu bari lu xew ci jullit ni nga xam ni tey da ngay am ñoo ñoo xamante ni su weeru kooru jotee de danañ di sàkk ay sarax danañ di def ay ndimbal waaye nag dañuy woo télévision ba day mu ñëw di jël ñee di jël si ñu leen di filmer ku ne xam na ni du jëf ji sell télévision wuti fa dara bu dong tax ngay jëf war nañuy roy sayyidul abidin sëtub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi daan tëdd ba guddi muy wër ci buntu kër way ñàkk yi bu ku wàcceel saakub dugub jàll fee wàcceel ko saakub ceeb jàll fee wàcceel ko gorosub suukar jàll fee wàcceel ko aslëf ci kafe di ko yenn ci gannaawam bu tedd ga radiyallahu taala anhu bu woy ñàkk yi xëyee ku gis bu sa buntu kër saako ceeb wala saako pep wala gorog sa suukar nga xam ne aji def lu baax day def moo def lii nga jël ko fat ci sa kër di ko jëfandikoo waaye kenn du la gis ngay ñu lay filmer ak nga nekk ci mbedd ma di xaar nekk ca naaj way di xaar loolu dara jëru ko te xam na ne su fekkoon ne lu baax dong la yitteel soo ñëwoon tey ci koñ soo gëstoo ñu dëkk ca koñ ba danañ leeral danañ la leeral ña aajowoo ñëpp kenn ku ci nekk mën ngaa fexe ba la muy jot ci aw yiw ca lan nga ko bëgg a dimbalee la nga ko bëgg a jàppalee mu jot ca te du àgg ci nga di ko filmer nit ñi di ko xool ak a gis loolu dara jëru ko nit ki la yonent bi doon jàngale yu bari mel na ni mi ngi bëgg a réer ndax yonent bi dafa daan jàngale ni dangay fexe ba booy def lu baax ndeyjoor bi nga koy defee bu ko càmmoñ bi yëg loolu mooy lan fexeel ba yàlla mi nga xamante ni moom gëmmut nelawut te kenn ku ci nekk mi ngi jàlloo ak yow xam na li ngay def xam-xamuk suñu borom boobu yi nag doy na sëkk wadis keneen di ca am aw yoon ndax nit ñi li ñuy bari bari bari bari bari lu ñu mën di xam ci yow bis boo génnee àdduna ba njëbbal la sunu borom nga dugg ci biir suuf yàlla dong nga fay desal ëllëg yow man xiyaamit yàlla dong ngay wéetal kon nag yàlla moom yi képp moo mat a seedeel say jëf ci lépp loo xamante ni jullit bi mi ngi koy def kon li ñuy def ci lu baax nañuy fexe di ko dëbb nga xam ne yàlla dong moo koy lal kon képp lu waay man ci def sarax di seet way ñàkk yi nga di leen lele di leen dimbali di leen taxaw ca ñu munta ñàkk it nga di ko def te jëmm yàlla tax te boo koy defee nga di ko suturaal loole lu am njariñ la ci biir weer wi nga xamante ni mooy weer wi ñu nekk kon kenn ku nekk ci noonu na bàyyi xel loolu fa ñu toll guddi gi gën ci guddi yépp kenn ku nekk ci noonu nit ni nga xam ne weer wépp lañu war a màng guddi gi def cee raw kon biñ fi dajee li nu war mooy fàttalante loo xamante ni dana lu bokk jariñ ñun ñëpp ndax yonante bi dafa wax ni kat aw nit ci benn ci borom yi di jàng alquran di ko settantal ci lut malaayika yi sunu borom yi dana wàcc ci ñoom muur leen ak borom subhanahu wa taala di fàttali it jëmm ya fa teew yépp ci seeni tur borom doonte sunu borom kenn ko nekk ci ñun mi ngi lay gis li ngay jëf mi ngi koy xam li ngay wax mi ngi koy dégg melowoo wa nga melowoo ma ngi koy gis kon nag li nu war ñun ñëpp mooy guddi gi ñu màng ko ci aw yiw jàng alxuraan tudd yàlla jéggulu ci sunuy bàkkaar tey ñaan sunu borom bokk lu jéggal ñun sunuy rëcc rëcc yi weesu yëpp te li des ci sunu dund it mu xiir nu ci boppam xiir boo xam ne saytaane du am ci mukk it aw yoon wayjur yi nañu gën a farlu ci yar seenu njaboot ci diine ndax jullit bi amul lu gën a màgg diineem kon bi nga tànnee nekk ab jullit war ngaa xam bu baax lan mooy lislaam te bañ ji dund te li ngay dund xamoo ko ndax kenn ku ci nekk kat su sa doom màggee tuuti yaa ngi koy jël dugal ko ci métier bëggumu xam métier ma ba mën ci àdduna bëgg xam métier ma ba mën laa jariñ noppal la yow may way juram te diine day mooy li nga xam ni nit ki su ko xamee te jëfe ko te yàlla tax mooy tax mu am teraanga joo xam ne du dog mukk mooy tax mu am teraanga joo xamante ni ëllëg du jeex mukk te jamono jii nu toll nag yi feeñ ci jamono bari na di nuru dara te du dara yi xemam loo nit ki aduna bari na te yooyu yépp day du la am solo ci bépp julit boo xamante ni borom xel nga l'islam ju ñu amee nga xam ni mooy li gën war nañ koo xam nun ñépp te ñi nga xamante ni duñ ay julit melakaan bi ñuy melawoo doxeen wi ñuy doxee jëf yi ñuy jëfe nun ñi ay julit ñu bañ leen a roy ci woowee doxeen ndax ki ab julit moom yaakaarul dara ëllëg nun ñi ay jullit nag dañoo yaakaar ngërëmal yàlla ëllëg yaakaar njëggalub suñu borom ëllëg yaakaar aljane suñu borom ëllëg te loolee nag la ñu koy may